المرسلين mooñu xoj waaye buñ doon fàttaliku rek mën nañu jàpp li ñu dajale fii mooy kenn ci góor yàlla yi waaye kenn koo xam ne dafa ràññeeku ci góor yàlla yi waaye nekk koo xamee ne ku ko xam mbaa nga miin ko mbaa nga koy dégg wala ngay déglu ay téeréem di ko yér da ngay yëg ni borom sañ-sañ la ci alalu yàlla yàlla ko ko defal kooku nag kenn rek la mooy xalifatul xaaji muhammad sañ-sañ googu mu daan doxe amoon ko ci alalu yàlla moo waraloon ba mu daan dund moom kott kepp kese lañ xamoon mu daan wax ni Seexu Tijaan a ngi nii sama càmmooñ yonantu baa ngi nii sama ndeyjoor bi mu fi jógee léegi kenn waxu ko fi te it gëm naa ni wali yu dana am ba ilaa yawmil qiyaamati waaye wali yu bu koy wax nag góoma ni dana amati kon kooka juddoom gi moo ñu fi dajale. bu fekkoon ne juddoom gi dara xewu ci dafa juddu rek bi ñuy bi ñu ràññee xàmmee li ko yàlla defal war nañ koo màggal waaye rawatina juddoom nga nekk di xar baax ndax juddu ci weeru koor ñu ne deetuwaay sallallahu alayhi wa sallam ñëw bu fekkoon dafa ñëw rek fekkee juddu walla wala fekkee tudd ga wala sax fekkee wut yooyu yëpp waaye jaar na fa ma ne kooka juddoom nga jar naa maggal rawatina yàlla dimbali ko ci mbaax ak yàlla yemut ca jaar fa waaye daf koo jël ci jëmmam ju tedd ji ak loxoom yu tedd ya loxoom booba nga xamee ne moo jëloon bëtëb xutaadatu ca xare ba xutaadatu dañ koo jam ci bët ndeysaan bët bi tuuru mu mu for bët bi daw ñëw fekk rasulillahi fi mu toog sallallahu alayhi wa sallam ne ko xoolal ni sama bët bi mel yonent bi xool ko ba mu yàgg ne ko tànn la tànnloo naa la bu la neexee ma delloo ko ci mu mel nam meloon bu la neexee nga bàyyi ko nii bu ëllëgee ñu monteel la bët boo xam ne bëtu marjaan lay doon ca aljanna ndeysaan xadaat xadaatatu xool yonent ba mu yàgg ne ko loola baax na lool waaye heggaguñ fa ñaareel bi maa ngi am séet bër ci démb laa ko jël bu ma demee di ko piis mu may piis du sotti dama bëgg nga ñaan nga dellool ma ko ci mu jël loxo mu jël bët ba wiis ko ci bët bi fa mu nekkoon mu daal di sax jàpp maam xalifa nee na bët booba bët ba mu làngaloon daan na wenantu waaye moom bët bi yonent bi yoon laaloon keroog ba mu ko laalee ba bokkutaatatu bi muy sàngook suuf mastawaat nentu kon kooka loxoom booba kum laal da nga barke loxoom booba nag moo jëloon xalifatul xaaji muhammad taf ko ci dënnam bu tedd booba nga xamee ne Aboubacarin nee na bu ma deen daan ak yonent damay mel nii dafay mel ni cin luy baax ci dënn bi ndax li ci nekk diis ak foor kooka kum taf ci sa dënn yaakaar naa ni dënn ba li muy tekki mooy sarse na ca dënnam ba la nekkoon ca dënnam ba kon kooka wax dëgg yàlla yaakaar naa ne loola jar naa teewe di ko juddal di ko maggal yal nañu yàlla fayal si am seen Cheikh Ahmad mii nga xamee ne ci xalaatam ci farloom ci góor góorgóorloom ak dëggoom ci la bis bi amee mu nekk cëram yàlla na ko muurloo waaye waaye ñu nit yàlla nañ ko muurloo kon kooka yaakaar naa ni màggal ko dana waral ñu màgg ñun maanaam teeral ko dana waral yàlla teeral ñu maanaam bég ci juddoom dana waral yàlla mi yàlla sax far bég ci ñun te yooyu yëpp boo amee li muy tekki rek mooy fajug aajo am na te yàlla na ko yàlla def te gëm nañ ni incha allahu taala yàlla nañu ko defal bu fekkoon ne dafa am da koo gis benn yoon ci dundam ba ba muy génnaat àdduna gisaatu ko du tee war nañ koo màggal ndax gis yonent bi li gën a màgg gën a foor ci awliyaa ullahi saalihina gis yonent bi ci la bokk booyee ba sax nga ne moom mooy li gën a foor maanaam ci bépp waliyu waaye yàlla dimbali ko keroog ba mu ko gisee ci liir ba muy nàmp ba muy fer bay nekk waxambaane ba muy jàng ba muy jeexalee jàng di taali téere ba muy ànd ak Seexu Tijaan lépp masta teqalikook Sayyiduna Muhammad dema dem ba war a génn àdduna moom ci boppam mu saxal ne danaa génn àdduna waaye nag duma génn àdduna mukk nderee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñëw jël si na ma woon ba may juddu fa lillahi alhamdu yaakaar naa ni kooku wax dëgg yàlla teewee bisam li muy tekki mooy sens la maam faama càm moo ñu nettalil mu ne maam xalifa moo ko wax ne ko caam faama mu ne naam mu ne ko duma ma génn àdduna mukk lu dul rasulillahi dafa ñëw jël si ma waaye faama damaa tàng uppal mu ne maam mu ne bopp maam xalifa bi mi ngi tege ci poojam bi mu ne mi ngi ñaq mi ngi upp mu ne fi muy upp ba mu yàgg mu déggi benn baat daal di nuyoo ne salaamu aleykum nee na ba mu déggee salaamu aleykum baat booba jox ko baata maanaam Baye Niass ndax Baye Niass dafa daan ñëw heure booba di fa ñëw waxtu woowa heure bu ne yàlla dogal nag mu jox ko baat booba ba mu ko joxee baat booba yàlla dogal mu ne ko entré waaye duggut waaleykum salaam kenn dugg siwut mu dindi maam xalifa pooj bi mu wéeru woon tëral ko ci suuf jug ngir seet kii nuyoo kan la ndekk kooko mooy rasulillahi mu ñëw yëkkati rido bi xool ndeyjoor gisut kenn mu xool càmmooñ gisut kenn génn ba ci bunt bi xool xool gisut kenn bi mu ñëwee fekk na xalifatul xaaji muhammad dem barzax ndeket kam waxoon ne du ma génn àdduna nderee dafa ñëw jël si ma ka nuyoo kookaay rasulillahi kon maanaam ba mu juddoo moom ak ba muy màgg moom ak rasulillahi bi muy fer moom ak rasulillahi bi muy jàng moom ak rasulillahi bi muy amee xam-xam di ko joxe moom ak rasulillahi ba muy gàmmu moom ak rasulillahi ba mu demee boor a génn àdduna moom ak rasulillahi waaye biñ koy jébbal bàmmeel moom ak rasulillahi yàlla ñu ko yàlla fayal yaakaar naa ni kooku bisam teew ci rek sens la kon dafa am am na ku fi laaj léegi wax ne war nañoo baaxee nit ñi maanaam koo xamee ne mën nga wasifa mën koo defee ca mbooloo ma ànd ak loolu yépp sàggante dab na la ba doo dem ca mbooloo ma donte yaa ngay wasifa borom maanaam ulamaawu tariqa bi dañoo def ñaari xaaj ñenn ña liñ gëm te bëriwut mooy képp ku mën a dem ci maanaam ci wasifaakaay ba wasifa woo dem wasifa yow kot ñu ne amoo wasifa ñooñu nag ñu ko wax bëriwut waaye bu ko kenn waxoon doy na lay te bokk na ci ñi ko wax Cheikh Omarul Fouti radiyallahu anhu te Cheikh Omarul Fouti wax nañ ni am nay jamono buñ ko tuddee ci kanam mamalaaj mamalaaj yi day jóg taxaw toogaat kon kooka lu mu wax ci tariqa bi maanaam rëddu rëddu xeer la du far kon li muy tekki mooy naam boo amut wasifa it yool bu rëy maanaam faat na la ñaareel bi mooy ñenn ña dañoo gëm ne effectivement bu doon ñaari nit la sax war nañoo dajee maanaam wasifa ndax lan ndax li rasulillahi wax cheikh na tijaani wax ko sallallahu maanaam radiallahu anhu ne walaw alimtu ma fil wazifati laa tawhum xab wan bu ngeen xamoon li nekk ci wasifa da ngeen dem di wasifa ci donte da ngeen ni raam ba yegg ca maanaam wasifa kaay ba wasifa ba pare doo a bi kon li muy tekki mooy kuy tiijaan boo ko yëgee ak boo ko yëgut Cheikh na Tidiane mi borom tariqa bi rasulillahi mii borom tariqa bi mayuñ la ngant maanaam ñàkk a dem maanaam ca place wasifa ya te mag ñi nee nañ bokk na ci mag ñi ma wax ku ko wax maanaam sëriñ Habibu Sàll mu ne maanaam am soxla dem ci wasifa ba def ci sa poos lu ñuy lekk nga wasifa ba pare mu ne génn lemmi ko lekk ko dem ñibbi mu ne sa aajo fajuwut li muy tekki mooy demoo woon ca wasifa kaay ba kon li muy tekki ndekete ñun ku bëgg saajo faju di dem sa wasifa kaay ba am na fi ku fi nekk fii bu ma ragalutoon ne diw la waaye comme dafay nëbbu nañ nëbb ma nëbb ko ànd ak moom léeg-léeg damay am soxla ne ko sëriñ bi damaa am soxla nàngam mu ne ma danaa danaa danaa ko wax fa ma koy jàmbatee fa ma koy jàmbatee ñaari barab la benn benn bi mooy ci xadara wasifa bi dana ko fa jàmbat nu ngi koy jàmbatee nag xaw ma ñaareel bi dana dem ba ci maam alaaji maam xalifa fañ tëdd mu jàmbat ko fa te mosu faa jàmbat lu fajuwut mosu faa jàmbat lu fajuwut te loolu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko kon nañuy wasifa ji dafa bokk ci mandargay tiijaan kenn du la mën ci wasifoo ku la mën ci wasifoo rek boo ko yëgee ak boo ko yëgut moo la gën a nekk tiijaan boo ko yëgee ak boo ko yëgut moo la gën a nekk tiijaan kon nag yal na yàlla def ñu tiijaan waaye tiijaan yuy wasifa moo gën ñu nekk tiijaan yu dul wasifa waaye tiijaan yu wasifa ca mbooloo ma moo gën tiijaan yoo xam ne dañuy wasifa ñoom kenn kenn comme ni nga ko xamee ne julli ca mbooloo ma moo gënal yàlla te moo gën ci yow waaye wasifa ca mbooloo ma moo gënal yàlla te moo gën ci yow kon nag fa lillaahi alhamdu fu waay mën di ne nañ toppatoo wasifa yi rawatina àll bi rawatina àll bi yàlla xam na ni dëkk a ngi jàmbat ndox ñàkk a respecté wasifa tax amuñ ndox dëkk ngi jàmm dëkk ngi jàmbat courant ñàkk a respecté wasifa moo tax ñuy jàmbat courant nit maanaam dëkk ngi jàmbat di jàmbat jàmbar ya bari yàlla xam na ni bu ñu joxoon tariqa bi la mu soxla ci seen dëkk ya tariqa bi mujj honoré leen ci seen dëkk ya kon li ngay yëg wa maanaam njëkk koo yëg mooy yëgal ni kenn fajut sa soxla yaay faj sa soxla faj sa soxla mooy liñ la jox boo ko respecté yàlla defal sa mbir ma tëjee maanaam euh, sunu nijaay ji Ahmed Babacar ngeen xam ngeen ko maa dégg mu ne dafay nettali ñëw ci papaam ne ko bàyyi mu ne mu ne ko ah ñaanal dëkk bi dëgër na de mu ne góor gi xool ko moom yàgg ne ko sa kurus gi xool ko mu xool mu ne ko ndax dafa manqué mu ne ko ah déedéet manqué wut mu ne ko kon wir de woo góor gi lim gëm mooy kuy wasifa di wir de subaak ngoon doo ñàkk soxla waaye soxla bu tag doo ko am kon yàlla yàlla defar suñu mbir defar seen mbir bu taxutoo nag gàtt gi ñi fi teew ñépp ñu tudd leen ndax wax dëgg yàlla yelloon nañ ko ndax sotle gu ñuy sotle ñenn ñi seen mag ñenn ñi falilaahi alhamdu seen seen seen seen maanaam sëriñ ñenn ñi seen soppe seen xarit ku jar a sotle di Cheikh na Ahmada Tidiane ibnu Cheikh Alhaaji Omar yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla sagal ko li ci des mooy xam ngeen ni biñ ko commencé def ak léegi jàpp naa ni li ko teree fukki at boo ko doon lim boo moytul da ngay wax ni benn at la booba ak léegi buñ ñëwee dañuy dem ca garab ga julli fa loolu nag dafa xewi ñun ñëpp ñu ànd ñëw fekk barab bee ñu ne fa la maam xalifa juddoo ñu julli ca garab ga ñi maanaam dagg xob yi ñibbi dëgg-dëgg xewi na nag li war a xew mooy ñu ni barab booba dañ ko war a defar te kenn duñu ko defaral ñun ñi topp xalifatul xaaji Muhammad bëgg ko mu jaral ñu ñu ñoo koy war a defar sëñ Cheikh mii mën na koo defar maa ko wax ne ko déedéet doo duñ nangu yow nga ne danga koy defar déedéet li nga ci bëgg lañ ci lañ ci bëgg kon ñun ñëpp nañ yëg ne dañoo war a jaayante pour defar barab bii booba ba léegi nag amoon na amoon na gàllankoor waaye yàlla dafa mel na ni faj na gàllankoor googa ndax sëriñ bi dafa nuru way juróom Mawlaa Cheikh Al Hadj Omar bu ko neexoon mu ñëw rek wax a wax a wax lijjanti bañ jox ko barab bi waaye daf ni moom du jël barab bi ndere ki moom barab bi daf ko koo jaay mu lew ko doom yàlla dogal na fa ilaa du juboo nañ ñoom ñaar xaw ma lañ juboo nee na dana da maanaam moom dana ko fay waaye dama bëggoon nag ñun ñi fi ne fay googa muy fay ñun ñu def ci suñu wàll na nekk ñeent fukki junni baax na na nekk juróom fukk baax na na nekk téeméeri junni baax na lu mu doon ñu xam ne ren lii lañ am teg ko ci loxoom bu déwénee bu ñu ñëw kenn ku nekk bàyyi ko xel yëg mi ñëwuñ fi rek di tudd yàlla waaye dañ fay ñëw di jaayante ndax laa miinal inna allaha shara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna jan na kon nag aljana la ñuy wut fii fañ jógee aljana lañ fay wut fii ñu toogandi it aljana lañ fay wut waaye aljana kenn du ko am du lu dañ jënd kon kenn ku nekk ci yéen na làmb poosam ñu teg ko fii konte ko teg ko ci loxol Cheikh na Ahmad Tidiane mii bu ko defee magay joxe na ñaari junni yal na yàlla yokk ko tey yàkki ko ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi waaw koy mbay soodo joxe na yal na yàlla yokk ko tey yàkki ko lu waay am na ko indi buñ ko def nag àddiyee saalum saalum mën a joxe ñaari téeméer lambu lambu ñaar fukk baax na dañ la bindal yool waaye boo ko yëgee ak boo ko yëgut manqué na kon nag lu waay mën buñ ko waxee seetal la nga xamee ne buñ la ko doon jox mu neex la bu ko defee nga joxe ko kon na ñëpp làmb seen poos yi comme ñu doon tuddee yàlla góor jigéen mag ndaw ñu yore ay mbaxana nañ dem ci jigéen ñi waaw kay Moussa Doucouré joxe na ñeenti junni ci barab bii nga xam ne moom la ñuy defar maam Khalifa yal na yàlla yokk ko te yàgg waaw kay ñang jërëjëf yàlla na ñes jërëjëf yal na yàlla yokk te yàgg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàmbare nga xamee ne moo waral bis bi joxe na ñaari junni yal yàlla yombal ko yal na yàlla yëkkati la ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla yokkute yàkki waay ñëw leen mu gaaw bu ko defee ñu jox sëriñ bi moom mu ñaan rek bu ko defee kon waaw gëy Baye Cheikh Ndaw Ngodiba moo joxe junni bii yal na yàlla yokk ko te yàkki ko barke yonent bi sallallahu waaw gëy si la jërëjëf yal na yàlla yokku te yàkki làmb leen ñu defal yàlla defalee yàlla maanaam ci wàllu yombu tedd bii di maam Khalifa Niass làmb leen na góor ñi ñëw na jigéen ñu ñëw na góor ñi ñëw na jigéen ñi waaw fii ba déwén lu waay am mën nga woo sëñ Cheikh ne ko maa ko dugal maanaam ci barabu maam xalifa mi borom 5000 bi am 4000 la ngoog 4000 la 4 4 maanaam 4000 nga koy jox. mu ne sëriñ bi nee na wecc ko sëriñ bi mu ne lii ñuy laaj dañ koy laaj ngir départ waaye taxut ñu bàyyi bu ëllëgee ku am looy joxe boo wooree papa xalifa rakkam boo ko ko joxee dana ci jot kon nag na ñëpp yëg ne barab bii di baraba maam xalifa kenn duñu ko defaral na nga xamee ne ma na war ba yonent bi eggee sallallahu alayhi wa sallam ñoom saxaaba yee futteeku defar ko ba mu ne boy fii kër xalifatul xaaji muhammad gii war naa am zaawiye kër xalifatul xaaji muhammad war naa am daara kër xalifatul xaaji muhammad war naa am ay dalukaay yoo xam ne ku ñëw mën fa ne war naa am dëkkuwaay yoo xam ne kum neex nga ne tey damay siyaare ji sellit te loolu xaalis a koy def te kenn duñu ko defal kon na ñëpp góorgóorlu def ci def ji nag ren la tàmbali ma déwén heure bu ne lu waay joxe rek boo ñëwee da nga ko fi fekk kon maa koy waxaat bu lii paasee lu waay di joxe na ko jox Papa Khalifa yemul ci xaalis ku am saakoob dugub mën koo joxe joxe ko ku am saakoob gerte mën koo joxe joxe ko ku am bëy wooy joxe joxe ko joxe ko ku am nag wooy joxe joxe ko ku am giléem koy joxe joxe ko ndax nit mën naa ñàkk xaalis waaye am lu mu joxe leen lu dul xaalis te loola mën a soppeeku xaalis yal na yàlla yokku te yàkki barke barke alquran du kuré yal na yàlla defar sa mbir ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ñëpp joxe bokki senegal ñoo leen di nuyu di leen dalal fii ci Sélig ci turu borom dëkk ci turu dëkk bi képp koo xam ne ñëw na fi am loo fi def gis nañ la ñoom lay sant ñoo ngi lay gërëm muy góor muy jigéen ngërëmaate bi nag duñ ci mën a sori nde xam naa ne fiñ ñu toll nii waxtu bi jot na daanaka li ko des bëreetul ba tax li ma bëggoon a wax yépp ngërëmaate bi moo ci ëpp la cee def dañ koy euh, bàyyee sëriñ bi moom ci boppam maa ngi koy gërëm di ko sant li tax nga xam ne dëkk bi mu koy gërëm di ko sant mën naa wax ne tund bi ñu ngi koy gërëm di ko sant mën naa wax ne Sénégal ñu ngi koy euh, ñu ngi koy sant ndeg lii nga xam ne moom lañ fi def nii tey nekk na loo xam ne mën na aar lu ne ci biir Sénégal kon loolu rek jaroon na tax tey ñun ñëpp ñu walbate ko gërëm ko gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi ñëw def ci seen alal def ci seen doole def ci seen ñàq yëpp ñu gërëm leen sant leen loolu donc moo tax may jël micro bi mais su ko déggoon comme euh,